rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala alhaadi alamiin sayyidina wa mawlaana muhammadin ilmakiin wa ala aalihi wa ashaabihi sawri ridwaani wa tamkiin ma baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara leen ndokkeel ci bis bu tedd bi waxtu bu tedd bi ci barab bu tedd bi ñu nekk di leen balu àq di leen baal àq ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu yàggal fi sunu kilifa gu mag gi nekk ci sunu kanam mu yàgg fi lool ba yàlla may ko tawfiq mu àggale lu bari ci yéene yi nga xam ne am na ko ci diine ji am na ko ci yoon wi te ñu ànd ko ak moom xam ngeen ne àjjuma ji weesu wala ji jëkk ji weesu doon nañ jéem a gën a teqale waxtaan wu am solo wi nga xam ne sëriñ bi waxtaanoon na ko ci tabaski gi ngir laabiire bokki jullit yi fàttali leen jooxe it warugar wi nga xam ne yàllaa ko teg ci kawam muy war a digle war tere ñu waxoon ne waxtaan wi yaatu na lool waaye am na ci ñaari tomb yoo xam ne taxaw na ca bu baax gën ca leeral ñaari tomb yooyee mooy ndaw ñi solo guñ am solo ak war guñ leen war a taxawu ba ñu mën a jooxe warugar bi nga xam ne ñi ngi koy séenu ci ñoom ëllëg te loolee sëñ bi tënkoon ko ci rek ak njub xamal leen ak njub njub googee nag ñu waxoon ci jumtukaay yi nga xam ne moom la ñu a jëfandikoo ngir nit ki am ak njub te waxoon nañ ca am njàng jàngal ko bu baax mu xam lim mu war a xam ci diine waaye it yar ko bu baax ba lim jàng mu mën koo jëfandikoo waaye wutal ko ab royukaay bu baax boo xam ne da cay xool di jëf waaye it fexe ko fegal loo lépp loo xam ne luy gàllankoor loolu nga xam ne moom lañ ko jàngaloon wala loolu lañ ko yaroon lu koy gàllankoor ci ay majalisu shaqaawa loolu ñu ko tuddee woon ñu fexe ba gàllankoor yooyu yëpp ñu dox digganteem ak moom kon tomb boobu jëmoon ci gone yi waxtaan woon nañ ko ci ajuma ji paase tey nag benn tomb bi ci des mooy biñ defaree gone yi ba noppi bañ defaru mën a defare léegi nag lan lañ war a defar sëriñ bi daf leen a yan responsabilité bu mag a mag a mag boo xam ne buñ defaroo ba noppi nag moom lañ war a yanu war koo joxe responsabilité boobu mooy aar dëkk bi wattu dëkk bi ni nga xam ne noonu la ko seeni maam ak seeni baay wattoo woon ci diini ji ak ci tarixa bi ku ne xam na ne yoon wi fu mu agsi rek la ko fa agsi la ca ëpp ay ndaw a ko taxawee woon ma nga tàmbule woon ca boroom yoon wi ki sos yoon wi ba koy sos ci saayir ci ak ndaw la ko sose waaye ñam ca àndaloon ñëpp ñu di ko jàppale it ña ca ëpp ci ak ndaw lañ ca àndee woon ak moom def ci liggéey bu mag boo xam ne suñ leen di nettali tey dañuy defe ne ay mag yu mag wala ci saayir ci ay yu am at yu bari ñoo ko doon def fekk na ay ndaw yoo xam ne seeni at ca jamono yooya bëreegutoon noonu kon loole seeni maam defoon seeni baay def ko ci yenu seeni responsabilité ci yoon wi joxe ku nañ ko war a joxee gannaaw bu ñu leen defaree ba noppi loola it ndaw yi it war nañu topp yoon woowee bu ñu leen jaaralee fa ñu jaarale woon ñooñu ba noppi ñoom it ñu yenu seen responsabilité yi nga xam ne war nañ koo yenu ci aar dëkk bi sàmm ko ci lépp loo xam ne lu chariat taamuwul la loolu moom ci seen ci seenu loos la ko sëriñ bi gàll ndax te it ci la ko yoon wi gàll naka jekk dafa leen koy fàttali rek waaye loolu lépp it bala ko wala yee yanu nag responsabilité boobu balañ ko yanu dañuy xam lan la ndax nit munta sàmm lum mu xamut lu doon wala bu ko sàmmee du xam nu mu toll loolee nag la ca war nag mooy xam dëkk bii di tuubaa lu taxoon borom sanc ko ak lan la ñaan mu am fi ñu dundee ko ñu di ko fi dundee lan moo tax mu sañc ko lan moo tax lan la ñaan ci ay mbir yoo xam ne war na fee am ngir ñu mën fee dund la tax mu samp eh, samp ko moom moo ko waxal boppam mooy jaamu yàlla ak dundal sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaamu yàlla képp moo tax mu san sanc ko ak dundal yonent bi lépp lu ci dolliku rek day dimbale jaamu yàlla googee di dun di dimbale dundal sunna yonent bi sallallahu alayhi waaye loolu dong nga tax mu sanc ko boo demee ci Minanul Baaxil Xadiim sëriñ Mouhamadul Bachir danay wax ne sëriñ bi wax na danay wax ne li tax ma gën a bëgg Tuubaa ak Daaru Salaam ci beneen dëkk bu dul ñoom mooy euh, am euh, li tax ma ma sañc leen dafa dëggu sellal gu ma sellal ci sañci leen sal def ko ngir yàlla képp ak jaamu yàlla jaamu yàlla dong nga tax ma sañci leen delluwuma fi ngir dabu ay suufi maam walla ma dellu fi ngir yor ak jur gu ma bëgg am ñax muñ sàmm wala ma dellu fi ngir bëgg mbay fu ma bayee loolu lépp nga xam ne mooy li ëpp ci nit ñi moo leen tax di wut suuf nee na loolu lépp man yëkkatiwuma loolu taxu moon ma sanc ko waaye li taxoon ma sanc ko li ibadatillahi waxdahu an iznin minhu waxtiyaar jaamu yàlla dong moo taxoon ma sanc ko ci ligal la yàlla ak ko tànnam goo xam ne moom ma ko tànnal moo ko digal kon loolu leer na nañ ñi ne moom li taxoon mu sañc ko moom mooy jaamu yàlla dong kon lu fi waaye di def rek da war a jàpp ne loolu ak jaamu yàlla nga ko war a jàppee waaye jubluwaay bu dëgg-dëgg moom mooy jaamu yàlla ba ca des mooy eh, dundal sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu it moo ko wax ci xaside googu nga xam ne mooy matlabul fawzayni nga xam ne moom moom ci lay ci lay misaalee dëkk bi ni mu war a mel ak li mu ci bëgg ba muy demee ca muqad eh, ca ca ca tarjumaan ja ma nga ne wahiya ay alqasida xaside gi nga xam ne mooy matlabul fawzayni maqulatun fi maskin fi maskani qaa'iliha xarasa allahu taala min kulli makruhin mawquufin bi jaa'i man haajara alqaahilu ilayha li ixyaai sunnatihi xasida gi maa ngi ko waxee ci dëkk bi nga xam ne yàlla wattu na ko ci lépp loo xam ne luñ sib la ak lu ñuy ragal la ci daraja yi yonent bi nga xam ne gàddaay naa fa ngir dundal sunnaam gàddaay naa ci dëkk boobee ngir dundal sunnaam kon jaamu yàlla ak dundal sunna su yonent bi sallallahu képp moo tax sëriñ bi sañ ci dëkk bi jaamu yàlla nag bu ñu ko waxee loolu julleek woor ak yiñ miin da ciy dugg waaye moo gën a yaatu loolu ci dégginu sëriñ bi jaamu yàlla ci dégginu sëriñ bi mooy lépp loo xam ne lu yàlla bëgg la lu yàlla gërëm la ci ay wax ak jëf ñoo xam ci saayir la wala ci baatin la moo xam ci diine la wala ci àdduna la lépp loo xam ne lu yàlla bëgg la rek ci jaamu yàlla ci la bokk kullu maa yuxibuhu llah wa yardaa min al aqwaali wal afaali alzahirati wal baatina fi diine wa dunia loolu lépp ci jaamu yàlla la dugg qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi alamin yëngu yëm yépp yëngoom yëpp ak dalam yëpp day daal nekk jaamu jaamu yàlla kon jubluwaay bi moom leer na jaamu yàlla dundal yoon sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci déggin wu woowu lim bëgg nag mu am fi nag gannaaw bu ko sañcee ba noppi nag bëgg na ay jikko yoo xam ne diine da koo digle waaye ay jikko yoo xam ne ak nite da koo digle yooyu yëpp ñaan na ko mu am fi mu jikko yoo xam ne yenn yi ci nit ki la jëm ci jëmmi nit ki la jëm waaye yenn yi ci ruuxoog nit ki la jëm day dundal ruuxam yenn yi day dundal yaramam waaye yenn yi day dundal ruuxam yooyu ñaar yooyu nga xam ne bu dajee dana mën a amal jaamu yàlla googu nga xam ne moom la bëgg ci moom moom la fi bëgg jaamu yàlla gi mu bëgg am na ay ay conditions yoo xam ne bu dajee dana mën a jaamu yàlla googu dana mën a am ñi nga xam ne noonu la ko bëggee te bu yaa jaamu yàlla googu bu amee ni mu ko bëggee ca la saadatu daare ni di topp ndax fu ñuy jaamoo yàlla rek saadatu daare ni dana fa amee fu ñuy jaamee yàlla te sellal ko saadatu daare ni dana fa te saadatu daare ni mooy tuubaa tuubaa mooy saadatu daare ni wajati ilaahi maskani tuuba abad mislasmiha bi jaahi xayri man abad tuubaa gi na ko def mu mel ni turam wa turam ba nga xam ne garab la ci àjjana nekk ci biir àjjana bala ñoo dem àjjana nañ dund Tuubaa googee fii ci àdduna ci euh, lépp loo xam ne aw yiw la lépp loo xam ne ci lu lu baax la ci doomu aadama la yooye mu fi ñaan nag am na ci loo xam ne ci nit ki lay dellu la ci njëkk mooy sécurité am am ak kóolute gu wér a wér wér ci saayir ku sécurité ak saayir boo xam ne am na ñu koy taxawee ñi sëñ bi tànn digal leen ñuy taxawee loolu ak ñañ ko ña leen cay jàppale ci ñi yàlla dénk réew mi ñooñu ñoom ñooy toppatoo loola sécurité boobu moom ñoo koy toppatoo ñoom buñ ca jàppalantee ñoo koy toppatoo wajal xarimana xariman amina wa kun bi xifdihi kafilan daamina wal tax mi daariya anil fujuuri wal fisqi wal baatili fi duhuuri wa maskani sallim min al fujjaari wam nun al ahli bi may jaari kon lépp loo xam ne lu insécurité la lépp loo xam ne luy juuyoo ak ak dal ak akuk wóolu sëñ bi ñaan na yàlla dàqal kooku ci dëkk bi waaye nag sabab ba nag mi ngi jógee ci nit ñi nag ñu sàkk lu ko luy amal loolee ak luy def loole ba ca des mooy sécurité boo xam ne ci wàllu ya wér-gi-yaram lay doon ak wàllu li ñuy jëfandikoo di ko lekk wala ñu di ko naan nañ am sécurité ci lekk amam sécurité bu wér ci naan amam sécurité ci wér-gi-yaram na nañ nañ wér nañ lekk lu baax nañ naan lu baax ba mën a am ak wér-gi-yaram ay jàngoro sori leen. ay jàngoro sori leen wan fil wabaa wal balaya kullaha anha wa tayyib shurbaha wa aklaha ñuy lekk lu baax di naan lu baax di am wér gi yaram lépp luy jàngoro ak épidémie rek sori fi te bañ fee ñëwaat loolu it dañ cay taxaw ci lay waral loola mën a am ci ay jumtukaay yoo xam ne ay hôpitaux lay doon wala ay fajukaay lay doon wala ay e, e, yëf lay doon yoo xam ne loolee sëñ bi ñaan danañ ko mën a dëggal ci saayir ci euh, ni ñu ko yàlla mayee beneen ba ci des mooy ñu am kóoluteg xalaat maanaam dëkk bi ñu aar ko ci bépp xalaat bu baaxut bépp xalaat boo xam ne dëppoowut ak li taxoon borom dëkk bi sañ ci dëkk bi xalaat bu bokkut ak boobu rek yàlla dàqal ko ko yàlla fegal ko ko war na jinaa wana jinaa charra nasara wal jah wal yahud wa charra iblisa wa kulli zi juxuud kon ku nekk ci dëkk bi war nañ laa aar ba nga xam ne yenn xalaat yu jugee ci bitti moo xam ci wàllu diine la moo xam ci wàllu adduna la du la mën a fab bi ba nga euh, jàdd yoon wi nga xam ne moom taxoon borom sëñ ci dëkk bi waaye na am kóoluteg ci wàllu économie nit ñi nañ am lu ñu lu ñu lu ñu suturloo ba nga xam ne danañ mën a jaamu yàlla niñ ko war a mën a jaamoo wajub lahal xayra min al jihaati as sitti waqfi ila anil afaati waj'alhu rabbi arda rizqin wa amaan wa rahmatin wa saatin kulla awaan mboolem luy may nit am noflaay ci àdduna rek ci yi nga xam ne yuy jëfandikoo rek ñaan na yàlla sotti ko fi mu jugee ci mboolem anam euh, euh, wet yi nga xam ne mooy juróom-benni wet yi kon yooyu surul yooyu yooyu yooyu yooyu condition yëpp sëriñ bi ñaan na ko ngir nit ki mën fee dund ci jàmm mën fee dund ci salaam ba mën a jaamu yàlla ni ko ko digalee waaye mu ñaanaat leneen nag li yeneen euh, condition yoo xam ne moom ci wàllu ruux la jëm wàllu ruux luy defar xelum nit ki ak luy defar xolub nit ki luy defar xol ak luy defar xel lee luy defar jëmmu la yi ñu paase waaye lii nag luy defar xol ak luy defar xel yee defar xel la ci jublu mooy at tarbiya wa taalim jàngale ak yar jàngale ak yar ñu ubbi ay jàngukaay yu bari yu alxuraan yu xam-xam université yi lépp ñu ubbi ko ba nga xam ne képp koo xam ne am nga doom ju mat a jàng rek da nga am foo ko dugal mu jàng te doo ci ànd ak ab coono loolu it liggéey la boo xam ne moom taalibe yi ñoo ko war a liggéey wala ndaw ñi ñoo war a taxaw ci loolu loolu am yàlla dogal na sëriñ bi nga xam ne moom moo ñu moo ñu moo ñu doon fàttali loolu moom mi ngi ci loolu moom mu ngi ci loolu tam maanaam maanaam loolu mi ngi mi ngi mottali liggéey bi ci mag ñi mot liggéeyoon mi ngi koy mottali ba defar ay université defar ay jàngukaay yoo xam ne képp ku bëgg sa doom jàng incha allah tabaraka wa taala da nga mën a dugal foofu sa doom mu jàng wajal udda ban maskana taallumi wa mawdi al fikrati wa tafahumi wa maskana al irshaadi wa taalimi wa maskana taswibi wa tafhimi ñaari bayt yooyu boo ko seetee mbooleem xeeti jàngukaay yi rek dugg na ci biir yu ndaw yeeg yu mag yeeg yu dugg doomu yeeg yépp dugg na ci biir ñaari bay yooyu ne sëriñ bi ne nañ fexe ba amal ko fi mu ndaw ñi di ci mën a jubantiku ci seenub yar ak ci seenub njàng waaye ba ci des mooy bu njàngee ba noppi nañuy jaamu yàlla nañ ko def muy dëkk boo xam ne jaamu yàlla la looloo taxoon mu sanc ko al ibada jaamu yàlla kon lay war a am ci loolu mooy na fi ay jàkka bari lool ba képp ku bëgg a julli rek daal di mën a julli ci jàppandi waaye ay jaamu ko ay yàlla yooyu it bu fi amee ñuy jëfee nag li ñuy li ñuy jàng fu ñuy jëfandikoo li ñuy jàng al amalu bil maalum al amalu bil maalum li ñuy jàng nañ koy jëfandikoo wajal binaiya binaa ilmin wa amalin bi sunnatin wa xilmi nañ li ñuy jàng nañ ñuy jëfandikoo muy jàng ba noppi jëfandikoo te teg ko ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wal tusbitan fiihi jamaatan tuqiim alsalawat alxamsi daban yaa xakim nee na nga fi saxal mbooloo moo xam ne dañuy taxawal ay julli moo tax Tuubaa rek ngay dikk fekk dëkk boo xam ne nangamit at luy jege téeméeri at yoo xam ne amul benn waxtu woo xam ne mas na fee manqué ñu nodd benn waxtu wenn waxtu woo xam ne rek jot na dara xew ba tey ñu nodd wala ñu julli mosu fee am kon loolu wala tusbitan fii jamaatan tuxim jooju kon yàlla dëggal na ko ci taxawaayu ñi nga xam ne ñoo ko fi nekkal waaye nañ defar jikko itam nañ defar jikko yi ñu am makaarimul axlaaq makaarimul axlaaq mooy jikko yu tedd yi lépp jikko joo xam ju rafet la nañ ko fi dugal waaye jëpp jikko yoo xam ne ju safaan ak loolu la nañ ko fi génne wa daara ixlaasin wa sidqin wa wara wa daara sunnatin wa man ja min bida wa hab lana makaarima al axlaaqi maa taxaabubi bila shiqaaqi wa najjina bi jaayihi min daawa wal tak fi annaa kadiban wa lahwa bépp jikko bu rafet rek di makaarimul axlaaq nañ ko fi dugal nañ ko fi sàmm waaye jëpp jikko joo xam ne ju safaanoo makaarimul la nañ ko fi génne nañ ko fi solil yooyu ak yu dul ñoom ci ay jikko yu rafet yoo xam ne bépp ndaw nag war naa sàmmoon sàmmonteeg loolu ci dëkk bi nga xam ne da koy xam ba noppi nag fas yéene mu am fi ña koy amal mu bokk ca ñooñu nag te fas yéene koy amal ba bokk ci ñi nga xam ne Cheikhul Khadim daf ne ñi may dëkkal ñiy dëkk ak man ma tànn leen yàlla ma ko tànnal ñoo ñu day mucc nañ ci perte nga perte perte mucc nañ ci perte duñ perte mukk duur yi wa maalix tiire min jiiraani naajiyatun min jumlatil xusraani kon ku bëgg a bokk ci loolu dangay fas yéene yii sëñ bi ñaan ci dëkk bi nga fas yéene bokk ci ña koy amal yow ci sa bopp mënoo ko amal yow képp waaye boo àndeek ña nga ko sëqal ngeen jéem ko ci ndigalal kilifa yi te dañ ko mën a amal ni ko sëñ bi bëggee yàlla na yàlla suturaal te dimb dimbali ñu taw feexal ñu ba ñu am dégg ci li sëñ bi wax te mën koo jëfandikoo ba sunu borom tabaraka wa taala may nu taw feex nu am gërëmal sëriñ bi ci li nga xam ne moom la ci dëkk bi أشهد أن لا محمد رسول الله حي على السلام ñaareel nag dañ koy jëmale ci xut ñaari xutba yi nga xam ne moom la ilimaan di waaj a wax bu ñu noddee ci xutba bu njëkk bi ilimaan daf ci dénk ñu am ak sonne lool ak itte lool ci alquranul karim di ko jàng di ko setantal te di ko jëfee jàng alxuraan settantal ko jëfee ko ndax sunu borom tabaraka wa taala moo nu ko wax ci alquran afala yatadabbaruuna alqurana am ala qulubin aqfaluha digal nu nuy settantal alquran buñ ko settantalee nu seet lañ ca war jëfandikoo ñu jëfandikoo ko lañ ca war a bàyyi ñu bàyyi ko nee na sunu ci xutba bi nee na sunu jëfandiku sunu jàppee ci alquran teg ko ci sunu kanam di jëfee ay atteem moom alquran boobu mooy nekk sun lu nuy ommat ba ñu am ngërëmul yàlla am njéggalul yàlla ci alaxira ak ci àdduna waaye suñu ko gannaawalee teg ko ci sunu gannaaw jëfewuñ ay ateem loolu mooy nekk lanuy ommat jéemeenu ci perte ci àdduna ak alaxira ak sawara ndax ndax alquran mooy téere yàlla bu gànjaru bu bu bu bu bu bi nga xam ne bu buñ ko doon xiima day mel ni wurus la wurusu ngalam la wurusu ngalam noonu la mel kal lu lu i war li mu indil mooy daf nuy digal rek mbooleem jikko yu rafet yi ak melo yu yu ñu sant yépp mi ngi ci biir alxuraan mu di ko digal niki mbaax ak jokk ak bokk ak maandu ak rafetal sa diggante ak say dëkkandoo wala say say mbokki jullit ak sori lépp loo xam ne lu ñaaw la ci ay wax wala ci ay jëf loolu lépp mi ngi ci biir alxuraan mu di ñu ko digal ak la ca war a tere mu di ñu ko tere doy na waa waa alxuraan ñi jàpp ci alxuraan te di ko jàng di ko settantal te di ko jëfee doy na leen rek ñu ne ñoom ñooy ahlullaahi ahlullaahi wa xaasatuhu ñoom ñooy waa kër yàlla bu yàlla amoon waa kër yoo xam ne moom ko leen a jagoo mooy ahlul quraan ahlul quraan yi ahlullaahi wa xaasatuhu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax kon loolu doy na ndam lool ci ñi nga xam ne ñoom suba ngoon alxuraan la ñuy liggéeyee ci lañuy xëy ci lañuy ñuy gont ci xutbam ñaareel bi sëriñ bi nag daf ñu ci waxtaanal ci ci wala dafa ñu ci waar ci muñ nga ne muñ muñ ñu jàpp ci muñ lool te saxoo ko wan nañu ne mun jëy am na daraja bu rëy ci lislaam daraja bu tedd ci lislaam moom muñ ba ki nga xam ne moo ko moo ko melowoo sax melow mu woowu ki ko melowoo mooy ki nga xam ne mën nañ koo wax ne mooy al muslimul kaamil wala al muminul kaamil jullit bu ak jullitam mate mat sëkk mooy ak jullit boo xam ne dafa taqoo ak muñ dafa sàmmoonte ak muñ moom muñ moomu ñi nga xam ne ñooy suñuy bàyyi ci diine muy saxaaba yi ak taabi'un yi ci lañ jàppoon ba ubbi mboolem réew yi àdduna yépp ñu ubbiku ko réew yi ñu ubbi woon yépp muñ mu metti lool ñu muñ rek ba ubbi réew yooyu yépp dugal fa lislaam muñ moo leen mayoon loola ndax jàppandiku jàppandiku toon booba waaye ci muñ tam lañ lañ jàpp ba nekk que ñu am doole gannaaw bu ñàkkee doole lool ñàkk solo lool waaye dañoo muñ ba yàlla dénk leen doole may leen doole waaye ci muñ tam ci lañ nekkee ay boroomi xam yoo xam ne dañ daan tàllal seen loxo di laaji xam waaye bañ jàppee ci muñ muñ moo leen indil ñu nekk ay ulama waaye nag gannaaw bu nekkee ay juhala di ñu réer ñoo xam ne xamuñu woon dara waaye ci ci lañ ci lañ mujjee nekk ñu oomal ñu amal ñu am alal gannaaw bu ñu nekk ay fuqaraa yoo xam ne dañuy tàllal seen loxo waaye dama jàppoon nañ ci muñ ba ñëpp di leen tàllal loxo di di leen laaj gannaaw boo xam ne dañ ñaan tàllal seen loxo di laaj waaye ci muñ ci lañ demee ba ilif àdduna bépp ci diine ak ci ak ci ak ci àdduna xeet yépp am na ay jamono yoo xam ne euh, euh, jullit yi ñoo ko ilif ci diine waaye ñoo ko ilif ci àdduna gannaaw boo xamee ne ñu ngi nekk ci gannaaw nga xam ne ñëpp leen ilifoon ñëpp leen xeeboon waaye bañ jàppee ci muñ jàpp ci diine jàpp ci muñ loola nag moo leen may ñu dem ba ilif àdduna bépp ci diine waaye ñu ilif àdduna bépp ci ci mbirum mbirum àdduna ndax noonu ko yonent bi sallallahu waxee ne diine moom ñaari xaaj rek la waaye ashukru wa sabr muñ ak sant ñaar yooyu rek mooy mooy diine sotraan nit ki bu muñee ci muñ lay amee yowmal qiyaam lépp loo xam ne defoon na ko ci jëf yu baax mu fekk ñu bindal ko ko ci ab téere jox ko ko ci ndeyjooram bu ko defee mu am mën yërmande yàlla am yoolub yàlla am ngërëmal yàlla sunu borom malaaka yi nga xam ne ñoo yor àjjana di ko di ko garde di di di di garde garde bunt ba ñoo ñu nga xam ne dañoo muñoon ñu demee ba ba yowmal qiyaam malaaka yooyu dañuy taxaw tàllal leen ay loxo ne leen salaamun aleykum tibtum fadxuluha xaalidin ñëw leen ak jàmm dugg leen ak jàmm tatagal leen dugg leen àjjana ànd ak jàmm dugg leen ànd àjjana ànd ak jàmm te seen dugg googu day ànd ak yàlla gërëm leen yonent bi gërëm leen ngir muñ ga ngeen muñoon coono ya nga xam ne moom ngeen doon jànkoonteel ci diine di ko jànkoonteel ci jikko yu rafet kon loolu mooy xutba bu njëkk bi ak xutba bu ñaareel bi yal na yàlla dimbali ci dégg ak topp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.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 محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق والموعظة الحسنة والأسلوب الحكيم قال تعالى في كتابه الكريم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وسيد الخلق أجمعين wa ala alihi wa sahbihi wa zumratil mu'minin ila yawmi ddin amma ba'du fa ya ayyuha nnaas القرآن منبع العدالة في كل زمان ومكان وإنه لتنزيل من حكيم حميد منان afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walaw kaana min cindi gayri llaahi la wajaduu fiihi ixtilaafan kasiiran wa maa fadala ahadukum calaa saa'iri aladyaan illaa bimucjizati dduhuur wa aayati lqusuur kitaabi llaahi alqur'aan فإن جعلتموه بين أيديكم كان لكم قائدا في الآخرة إلى المغفرة والرضوان وإن جعلتموه وراء ظهوركم كان لكم سائقا في الآخرة إلى الردى والنيران كيف لا وهو اللؤلؤ والمرجان ويامرنا بالبر والصلة والأمان وبالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والعصيان وفي الحديث ahlul quraani hum ahlullaahi wa xaasatu waffaqna allahu jamian li mutaabaati alxaq xaysu kaan wa ajaarana bifadlihi min mutaabaati annafsi walhawa walseytaan amin الحمد لله الذي جعل المؤمنين إخوة ونعمة الأخوة في الإيمان وصيرهم بين الفرقة كالبنان والبنيان وكالبنيان والصلاة والسلام على نبيه الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين أما بعد فيا أيها الناس إن فضيلة الصبر من أعظم الفضائل ومنزلته عند الله من أشرف المنازل ومن كان صابرا فهو المؤمن الكامل وينال ما لم تنله الأوائل وبه فتحوا البلاد وأظهروا الإسلام وقهروا نفوسهم وصاروا أقوياء وعلماء وأغنياء وسادة الدين الدنيا والدين فبالصبر يجد كل إنسان في موقف القيامة ما قدمه من صالح الأعمال في الديوان فيتحلى الله بالرحمة والحنان فيتجلى الله فيتجلى له الله بالرحمة والحنان ثم يصب عليه الثواب والرضوان ويقول سلام عليكم طبتم يا أهل الإيمان ادخلوا الجنة بالأمان ورضيت عنكم بما صبرتم من الامتحان ورضي عنكم سيد ولد عدنان صلى الله عليه الكريم المنان يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين allahu akbar allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim sirata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 ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فلا تركبوا من ذكر الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة ولهم انقضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الذي من التجارة والله خير الرازقين الله الله ربنا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 allahu akbar allah asalaamaaleykum. asalaamaaleykum.